Maimouna Keita ñu ngi lay nuyu. maa alors ñu wax ni yow brigadier chef des gardiens de la paix à la retraite nga yaa nekk tam président mouvement mhm. national des policiers yi nekk à la mhm. retraite. ci Sénégal ci corps confondu yëpp donte nag jotoon nañu assurance jëru ñi ngàlloo wàllu infrastructure transport ak désenclavement mu di Mansour mhm. Faye acteur transport amal nañu seenu grève démb Gora Khouma ak i ñoñam li ñuy ñaawlu moo di li ñu duppee tracasserie policière ak irrégularité ci secteur transport bi ana la mooy sa jàngat ci grève boobee nga xamante ne ñoom amal nañu ko waaw ñoom ay sénégalais lañ bu leen neexee ñu grève grève moom kenn mënu ko tere su la neexee nga toog grève boobu neex la def li ngay def ñaxtu waaye ñaxtu biit man li may wax moom nañ ko teg ci yoon teg ci yoon bi moo di euh, loolu ñuy wax tracasserie mu ci tubaab moo di ñoom dañu ni mënatuñu def seen liggéey parce que may ñu leen jàmm ngi leen mayul jàmm ñu ne alkaati xam nga lu ma metti bu ñuy wax dañuy wax tracasserie euh, alkaati bi la ñuy wax mooy jox mooy jiitu tracasserie policière la ñuy wax mooy cela veut ñoom ñooy tax duñu yegg fenn duñ seen liggéey du sotti duñu mën am dara ngir parce que ñoom ñoo leen di sonal te du seen poste la ci nekkee loolu nañ ko waxee noonu mu demee noonu mm-hmm. te boo demee ci mbedd mi di daw maa ngi sama oto mm-hmm. mais ñan ak ñan ñoo nekk gendarme yi ñu ngi ci mbedd mi douane yi ñu ngi ci mbedd mi agent des eaux et forêts ñu ngi ci mbedd mi ñëpp ngi ci mbedd mi mais juuti yi ñu ngi ci mbedd mi mm-hmm. mais duñ ci tudd kenn alkaati bi daal mooy exemple waaw mais ñoom tam ñoom lu ñu bëgg ñoom tey bu ñu waxee naan dañ ne tracasserie policière tey ji tey bu ñu defoon liggéey bi normalement laa wax tey sans ñu boole ci yërmande tey ji tey ndakaaru du ñu dem du ñu dikk parce que tey xam nañu illégalement lii illégalité moo la de car njaga yi ak car rapide di dawee parce que waruñu am di ci technique li leen manqué seen oto yi parce que boo demee ci mbedd bi ngay dem mm-hmm. grande circulation yëpp ñooy panne di causage occasionnel accident mm-hmm. te pourtant koo ci arrêté na ko visite technique mu jox la su la déggee dafa mel ni euh, alkaati yooyee dañoo weex donc mais loolu lañ ko tuddee moo la xëy dëgg lu leer na danaa de bu leer mbuxum mm-hmm. mooy lan euh, guerre corruption mais am na ñoo xam te bu ñu génnee seen bureau di ñibbi malet ba ñu yóbbu dañ ci defaale trois millions quatre millions lu ñu koy amee. Mhm. gré gré yi nag yow nga am budget alkaati bi amagul budget te te te amul budget te am na ñoo ne ñoo seen def seen gré gré ko tudd. Mhm. comme ni ma la wax les car rapide yi ak camions yi nga xam ne ñooy def ak occasion rek kii da am quarante ou cinquante cinquante ans d'âge am budget technique ni ñu koy amee. Mhm. loolu dañ ko xool. dafa gum nga almadi ba gis fa benn alkaati bu fa am benn kër un milliard wala plus mhm. kon gisagoo ko de mhm. mais pourtant am waaw am na tey dañ lay nommé deux ans après nga tabax loolu mhm. wala yow amoo sax métier amoo sax diplôme nga tabax loolu mais fu ñu ko gisee wàdd gis nañ ko déggoo man la dama leen làkk raconté benn anecdote wax ma la ko ci tubaab bi ma nekkee poste police bu yoof bu grand yoof dimanche autant pour moi dama doon monté liberté 6 ci circulation bi foofu lañ bi jaxasoo may benn waaye di ñëw di ma fekk ñëwee rek nuyu ma chef na def ma ne ko maa ngi fi mu ne ah man dama bëgg a dem point E waa ci kër Ablaye Wade kooku su ma sañ naa ko wax. dama bëggoon nga dimbale ma wax may ma paas ma yëkkati tey may ko moo koy def bu neuf deuxième fois ma ne ko yow yaay kay mu ne man maay diw. comment. Hmm. xam nga woon ma ne ko xaw ma diw nag nu ma tudd turam pourtant tey jii li ma am alal kenn xamu nu mu toll. Hmm. six avant les élections je l'ai vécu moi-même. Hmm. et par respect euh, am na ñeneen ñoo xam ne aussi quelqu'un mi nga xam ne monté naa foofu. ñu ne ma dafa màndi ba nekk digg télé bi di doo deeloo yooyu ma yabal samay élément ñu jël ko ma écouré ko il est devenu une grande la République mhm. tudd turam donc dama wax ne ñun li ñu xam bu ñu ko waxoon tëkk bi toj kon daal ci biir ëmb boobu nga tudd mu di gerbeeg buxum bi dañoo yëpp alkaati mais am na ñeneen ñu nekk ci wàllu tali bi di ko def waaw ah, bien sûr kooku duñ ko wax amul benn autorité benn benn corps bu ñu bu ñu demoon fekk fa benn sac bu am cent nga xool di wax ñan ñan ñoo xamul man neewoon naa la chef de poste du poste poste de Yoff sama premier euh, euh, euh, li ma njëkk xalaat mooy bañ ma xam bañ ma fa yóbboo li ma njëkk a def mooy dama wër toutes les villages des Almadies ku ci ne ma jéem a seet moo ko moom ma xam ma benn jour ma monter encore foofu chauffeur de taxi et bu ma waar bu ñu ma man de benn xale moo ma jël démb dawloo ma waroon ma fay cinquante mi wëral ma mu yóbbu ma buntu këram rek wàcce ma du ubbi rek dugg bàyyi ma ma ànd ak moom du ma wax turu kan nag mm-hmm. un un multimilliardaire sénégalais. Mhm. bi ma demee fëgg ubbi ñu ubbi <laughs> sama maama di de. ci lu yàggul dara. ab ndaje diggante police ak euh, ëttu taskatu xabaar yi daal nay amoon mu mel ni. loolee nekk na lu am solo ndaxte donte nag diggante bi ratax na mais mën naa gën a rataxal diggante ñaari wàll wi bu ko defee ñu mën a amal seeni activité ci terrain bi ci anam gu gën a mucc ayib. waaw loolu baax na loolu nga wax noonu. Mhm. parce que coche journaliste bi ñu ànd ak le ñu tase ak alkaat mais lu normal la. Mhm. journaliste bi Sénégalais la bu koy neexoon mu tànn nekk policier. Mhm. policier bi Sénégal la dafa tànn nekk policier donc war nañu wax journaliste bi aussi buy parce que information la ñuy wax crédible information boo xam ne boo ko déggee da naan lii de lu am la lu war la lu xam ne lu taxaw la mm. donc ñu dem jàkkaarloo ñu toog wax ñu échanger. kii wax lii kii wax lii ñu mën a déggoo ci ay wax. Mhm. parce que tey les parfois da ngay gis ñu ni euh, dañ dem nañu couvrir euh, maltraité nañ journaliste wala dóor nañ ko wala nangam nangam. Mhm. mais au fond du wax lan moo posé le premier acte qui a occasionné mhm. que ñu dóor ko wala ñu pousse ko. parce que y a toujours un premier acte. sax ñu jàpp matériel am yàq ko. waaw yooyu yëpp ça c'est difficile parce que yàq mhm. matériel moi je dis non mhm. parce que peut-être mën nga euh, ci biir euh, faire dégager les gens mhm. mu am un peu de bousculade matériel bi yàqu ñu ne waaw noonu nangam nangam mais c'est comme le cas qui s'est passé le 23 juin 2011 kan la ñu incriminé le commissaire de police Arona Sy le meilleur des commissaires que je félicite au passage l'un des meilleurs commissaires du Sénégal qui a eu bëggoon mënoon na def comme ay collègues am toog ci bureau yore téléphone di woote mais dafa génn ànd ak i motom dem tey ba ba ba mu joxee instruction ne nañu dégager la foule parce que y avait eu menace yàlla yàlla yërëm ko Moodu Jóob boobu gaañu. Mhm. ba ñu jullee tisbaar man fa la ma fekk maa nga ko parce que damay dem ci yooyu. Mhm. dafa wax ne nañu def dañu dem def jiyaat génn Ablaye Wade moo ko wax de. billaay wallaay man dama fekk dégg ah, donc loolu mu wax noonu hmm. waaw mu ba mu ba mu ko defee ña ko topp nag di daw ba muy daw la la la la la fakastanu daa bi ña ko topp yëg ci koom hmm. ci la am ay côte cassée mais machine boobu di wees trente tonnes bu yëgoon ci koom est-ce am lu ñu suul hmm. dëgg yàlla dëgg rek la bëgg beneen bi mooy dispersion manifestation commissaire central war la ñëw mais ki ko war a jox instruction mooy c'est le préfet préfet war a waaxu ñëw dox des instructions mais est-ce xam nañ ko Arona Sy n'a fait que son travail pourtant lan moo ko fa lan lan moo ko ci fekk mu réussir un examen boo xam ne dans l'AEF yëkkati darajay police waa war dem ONU pour cinq ans ñu xañ ko ko quoi dix ans ñi doit se défenseur de droit bind ONU ne ko waaye moo occasionné lii moo def lii nangam nangam ba ñu jël ko mhm. te que ñu jël que jël mu deuxième am ah mbokk la ci un des défenseurs des droits de l'homme état gambien du wax turu kenn. Mhm. mbokkam la jege waa ñoom la lool li tax ñu def lool mais defuñu ko tey aar la yàlla may na ko dëgg parce que tey il a été si vigilant que ni kenn musul dugg place de masse ba yegg palais. Mhm. commissaire ba fa newoon tey ba ñu permettre Guy Marius Sagna ba mu détourné détourné cette vigilance ba yegg palais mais dañ ko relever. Mhm. donc tey jii tey ji tey bi ñu ko réhabilité je na parle même pas de réhabilité de remettre de ses droits delloowaat ko foofu namewaat ko directeur mais par conséquent deful dara. il ne fait que son en tant que policier. Mhm. donc tey ci loolu lañ nekk ka fa nekk di jiite police bi Ousmane Sy mm. ak ñamu àndal ak ñëpp ñi ngi def liggéey bu rafet boo xam ne dañ koy rafetlu ñun mm. leen ci encourage ci di ko wax ne ñun de retraité mais ñu ngi koy gunge ci loolu mm. suñu xeleen ci moom fu ñu toll di ko fàttali ko duñ ko di ko xool di ko xool di déglu it lu ñu xam du ñu bind ko xamal ko ko ne ko buñu defee lii def lii def lii parce que ñun dañuy xelal rek mëntu amatuñ doole ñu defee dañuy xelal donc ñun tey la ñuy def gëci gun ci lu ñaaw dinañ koy def bu baax tout récemment yëmbal sud yëmbal nord am na ay attaques de yoo xam dañu ñëw attaqué affronté policiers yi. Mhm. donc tey il y a lieu moom euh, man ñu jóg jëlaat ay mesures draconiennes pour yëmbal sud yëmbal nord dafay opération d'envergure pour wan nit ñi ne fii kat daan doole dafa am alkaati ñoo fi nekk dañuy dañuy nekk fii pour protéger les jeunes citoyens bu soobee yàlla. laaj bu mujj laata ñuy euh, ñaanalante. feetu fin d'année yi toll ci jamono ju doy waar mu di mbas mi di coronavirus mu mel ni kon nañ ko daan amalee at yu wees dina wute loolu ak euh, bii. ci loolee gouverneur région bu Dakar daane wax ni police ak gendarmerie jot nañu ay instruction ngir ñu bàyyi xel ci mesure barrière yi nga xamante ni kilifa yi teg nañ ko fii ngir ñu fonk ci mbas mi di corona virus est-ce que ànd nga ak gouverneur bi tey tam est-ce que jàpp nga ni loole mën naa tax ba ndaw ñi bañ a amal feetu fin d'année ma ne ànd ak gouverneur sax dafa ëpp sax dama ne ànd ak sama bopp mhm. ak sama njaboot ak képp ku ma fonk mhm. te ñu sénégalais nañu jullit lañu en en majorité. Mhm. waa tey ndax nga dem ne damay feetal ku ñuy fetal ñoom ñu ni Jésus les chrétiens. Mhm. ñun ñu ni yonent yàlla Isaa waaw dañu Isaa dafa dafa ñu jege. Mhm. waaw donc tey ñuy fàttaliku ñuy fàttaliku alors ñëwum àddinaam ak ni mu ñëwee àddina ak li yàq yàq ji ci topp. Mm-hmm. waaw tey ji tey est-ce que bi ñuy def gàmm gi Seydina Ahmed di fàttaliku ñoom ki gën ci bindeef yi di gën ngi bindeef génn lu yàlla bind mm-hmm. am na ñoo xam defuñu ko critiqué wuñ leen parce que xam na ni yoon dañuy protéger les personnes tey dem nañu ba affaire bi nekk première phase deuxième ba yegg ba yegg troisième mm-hmm. mais tey bu gouverneur waxul woon sax ñun ñoo war jël suñu matukaay bopp de ñun ñi kat dañu war a waratuñu def dara. Mhm. waruñu euh, xumbal xumbal yeeg dugg-dugg yeeg gën gën ko arte mais sénégalais xamul loolu xam bu xay sénégalais boppam la xam. Mhm. parce que dafa yaakaar ni moom du ko neex def fu ko neex jëm mais nag yoon yoon la tudd l'islam lu mu wax man yàlla buur bi sàmm euh, gëm ma topp ma gëmal bëggal muhammadu rasulullah wegal say ñaari wasul ki fi yàlla teg nag. ay ay ay ay ay santaaneem da koy def jëfe mhm. ki fi yàlla teg mooy kan Macky Sall mhm. mais moo ko sant la préfet la ministre de l'Intérieur jëlul jógoon a jël arrêté mhm. dañ ko ko sant dañ ko ko mu moom le gouverneur dañ ko dañ ko transmettre l'arrêté moom application la fi nekkee donc moom mënul jóg ñi nga xam ñooy ndaw buur yi xam ñoo yebal muy alkaat yi nga xam dañuy reen ak gendarme yi mais ñooy def liggéey bi donc man dama ci ànd ak ñoom di leen félicité si yoon la dañu war a toog pour que yàlla vraiment di ñaan yàlla lii fi lii fi ñëw yàlla jëlee ko fi ñëpp nekk ci jàmm nekk ci salaam mm. pour que vraiment que vraiment feebar bi euh, deux mille vingt et un nga xam ne dans une semaine ñu yegg fa mm. yàlla def ñu nekk Sénégal serein ñu am développement boobu moom loolu lañ soxla mm. parce que nag bu feebar bu bëree kenn du génn kenn dem euh, yaakaar naa dégg dana gën a bëri parce que boobaa xiif dana am mar dana am parce que kumb kumb moo di man nañ fi dégg naa ko affiche di di di di protester dañu bëgg liggéey. Mhm. est-ce que ñu liggéey mais terewul ñoom ñu liggéey. léegi dañu war a woy pour bëggal nit ñi bëggal nit ñi aussi mën nañ ko bëggalee ci beneen sens que ba ñuy regrouper nit ñi loolu c'est c'est extrêmement important mhm. man suivre naa l'église ci à travers les les télévisions mais gis nga mesure barrière yi ñu yëpp di fête célébrer messe bi fu deux cent personnes waroon ne cent lañ fay jël ak mhm. nga xam ni Euh, seen yoon lañu topp ñu ngi def respecté lool yow programme Sénégal bi nga de tey nga ni da ngay seetal da ngay xumbal da ngay dugg fii boo fa jógee yow xam nga loo fa jëlee wala booy ñëw lan nga indi wàllu nit ñooñu donc loolu loolu maa ngi lire léegi ci France 24 ñu ni Soumaïla Cissé l'opposant là vraiment j'étais triste génn na àddina ci ci ndax ndax mbas bi ah. donc yooyu yëpp c'est des situations yi xam ni ah. dañ koy négliger te li yàlla indi indi na ko donc par conséquent man ñi encore di sant di wax sama sama doom yi sama jarbaan yi sama sët yi mm. liggéey bi nañ ko def dañu jël opté pour la police par conviction nañu def nag xasteeg saaga dana am moolu mm-hmm. dana am te loolu métier bee ko war donc nañu gën dëgër mm-hmm. parce que liggéey bi ñi fi nekk ñi fi honnête nga xam dañuy xëy di liggéey di daan seen doole honnêtement ñooñu bëgg nañ ñu leen protéger pour ñu dem ak ñëw mm-hmm. donc bu leen déglu fu ñu leen xamal ne am nañu xam waroon nañu fa xasee la ñeneen te waxuñu ko fu ñu waxee ne da ngeen def lii am nañu ñu waroon wax dénoncé te dénoncé ko mm. donc tey jii tey nañu gën a dëgërte la ñuy def waaw amul yaakaar boobu ñu ko wax encore félicitation mm. mais am na yeneen amul yaakaar yu nekk ci biir police bi mm. te xamuñu ko par conséquent ñi ngi def seen liggéey comme lañ ko war a defee. très bien ñu ngi lay sant di la gërëm. man aussi maa ngi leen sant di leen gërëm di ñaanal seen bi vraiment yàlla na yàlla may fekk ay déwén yu bëri vraiment ñu taxaw déwén ñu waxaati waxtaane waat ko te yàlla na fi jëlee mbas bi dellooñ ci ku saga te yàlla aar ñu musal ñu ci lépp lu ñu ragal muy balaa di cat de làmmiñ